daa koy jërëjëf sëriñ bi ci kàddu yi tënk yi te am solo lool xam naa dañuy woo sëriñ Abdou Fatah Gueye Touba ci kanam yaakaar naa Touba ci kanam it kuréel la goo xam ne ku am solo la buy liggéey ci wàllu nekkinu nit ñi ci dëkk bi ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo kon dina am solo lool it ñoom it ñu indi seen jàngat ci li nga xam ne moom lañ déggee ci wax yi la koy mën a dimbali ci xam-xam ba ak yar ba mooy mu am lu jàpp bu loolu amul rek ngir mu jariñoo xam-xam ba ak yar ba dana jafe loolu nag di jafe-jafe boo xam ne ni ko ñëpp seetloo lu lu lu mat a bàyyi xel la euh, ci biir loolu nag kon da gis ne jataayu wata waxtaan bi aspect bu am solo am na ci dont yëpp am na solo mooy lu jëm ci wàllu économie ni nga xam ne sëñ Cheikh moom sëñ Mountakha ñoo koy ziar bu baax wax na ba léegi te mooy waa dëkk bi di góor góorgóorlu ci fexe ba nit ñi di amum xëy xam nga suñu xaar daf ci am wet goo xam ne dafay mel ne booy xool ndono la am nit ñi mën ci day mel ne ñi nga xam ne ñooy yaxantu ci dëkk bi tamuy jàll tamuy de doon loo xam ne par ndono la nit ku nekk way juróom da daan yëngu ci mu ñëw wutu ko ca nekk ca du teg jeneen yeneen jéego yu bees loolu dafa mel ne boo koy xool mooy xaw te téye dëkk bi ci wet googu la ca toppaat tamit mooy dafa mel dañ koo xaw a ragal dañoo xaw a ragal fiq ay jéego jëm ci taxawal loo xam ne nit ñi danañ ci mën a danañ ci mën a yëngu li ko def mooy bu ñu waxee wàllu industrie ñu bari ci mag ñi nga xam ne ay commerçant lañ wala mën nañ dara ñaaree bu ñu koy dég-dég bi ñu ciy am li ma koy faral di wax bari na dañuy jàpp ne bu ñu waxee industrie rek xel day dem ci automatisation xel day dem ci industrie yu mag yi ñuy gis ci télé bi mu nekk ay ay machine yu yu yu jéggi dayoo ci wàllu xereñ ba noppi rëy loolu te fekk ne bari na ci yu ñuy wooye ay industrie yoo xam ne àggut ci dayoo bañ koy yéegal dafa bari ay ay ay ay catégorie li ma koy nett li na boo demee dëkk bu mel ne Chine nga xam ne ñoo daanaka ñoo yor ñoo yor industrie àdduna bi mën nga faa dem ci bërëm boo xam ne dañ naan la ab usine la waaye boo fa agsee doo fa gis dara lu joxle wala loo xam ne lu yéeme lay doon ay nit rek nga fay fekk ci misaal bu mel ni mii ma sol bu ñu ko doon liggéey mën nañoo rangale fukki nit kii ñëw baat bi kii ñëw loxo bi kii ñaw nangam ba ci mujjantal nga kooku boole taqale ñu paqueté ko dóor ci tampon wala ni usine sàngama ko liggéey te fekk na ay doo nga toog di ko ñëw waaye yu mel noonu dafa laaj ñu nos ko méngale ko ak fi jamono toll bu loolu amul rek day daal di nekk liggéey boo xam ne liggéey boo xaw a doyee di lay doon te bu boobaa daay bi mu war a du ko am loolu nag noonu nga koy fekke foofu noonu nga koy fekke bi ci topp mooy nit buy am benn produit bu muy commercialisé di ko importer bu baree bari bu yàggee war naa xalaat ci lii nu may def ma nag ba tàmbali ko mën a defar ci dëkk bi la ci desaat ba tey ci wàll googu mooy lépp loo xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo moo xam lu ñuy lekk la wala lu ñuy naan la wala lu ñuy sol la wala fi ñuy dëkk la wala bërëbu fajukaay wala dem ak dikk dañoo war a góorgóorlu ba koy daanaka mën naa tax nit ñi am lu ñu jàpp loolu nag bu xoolee ci dëkk bi li ëpp ci yooyu nekkul ci loxo waa dëkk bi daanaka defuñ ci dara ba tax na ñu jàpp ne xalaat bi foofu la war a njëkk jëm ndax nit balaa muy xalaataa jëm ci yokkute ci wet yu baree bari yim mënta ñàkk daa war a am ba pare la ca toppaat tamit mooy tamuy jafe-jafe dëgg-dëgg mooy nit ñi seeni xalaat li ci ëpp dañ koy xalaate li teew tey jafe-jafe bi xew bi xew tey daal nañ ko song ci ay xalaat song ko jéem koo lijjanti waaye la ñëwagut wala li nga xam ne mi ngi ci suñ kanam te seen bu doonagut lu jàmp loolu moom boo ci doon jëm sax mën nañoo jàpp ne mën nañ lay xoolee bëtum ne li ngay def day tardé ak yu ni mel misaal bi mooy grand place yëpp rajo yëpp ci wàllu ndoxum naan bi la ñuy waxtaane boo dee def leneen sax lu bokkut ak loolu dañ lay jam na ne lii mooy li gën a jàmp dëgg la ndoxee li gën a jàmp waaye ndoxu taw yi bu ñëwee noonu lay mel buñ demoon ba mu yàgg lamp mbedd yi fay dëkk bi lëndëm actualité bépp foofu lay jëm nga xam ne booy wax ci leneen loo xam ne bokkut ak lii tey deesu la mën a dégg te ab dëkk ngir mu war a jëm kanam dëgg-dëgg faw mu am vision bu gudd te yaatu te sori rawatina dëkk bu mel ne Touba nga xam ne mag gi dafa gaaw waaye dëkk bu mel ne Touba nga xam ne téeméeri nit yoo fi jël juróom-ñaar fukki yi amaguñu fanweeri at xëy na loolu Sénégal gépp noonu la téeméeri nit yoo jël ah juróom-ñaar fukki yi hmm? seen at matagul fanweer hmm. loolu nag bu amee ci dëkk farlu hmm. lool war naa am ci nu ñuy def ba bu ñu leen jàngalee yar leen ñu fexe génne am lu ñu liggéey bu loolu amul benn ci yooyu bu jiitee rek bu jiitoo bàyyi ba ca des faw gàllankoor am faw jafe-jafe am te li nga xam ne moom moom la ñu mën a jàngate ci waxtaan wi bu dee nag ci wetu euh, wet googu nag ci solution yi bokk na ca kuréel gu mel ni Touba ca kanam ndax it léeg-léeg dinañ toog ci ay jataay di waxtaane ay jafe-jafe di xalaat ci ay solution ba gis ne solution ngi si waaye mu mel ne léeg-léeg solution yi bu juddoo tamit samp ko jàppale ko accompagner ko ba mu dem day nekkaat beneen jafe-jafe waaye solution bu mel ne Touba ca kanam nga xam ne toujours damay faral di wax ne buñ ko waxee buñ ko xool wala ñu koy moomale aw nit nañ jàpp ne moomeelu yoon wi la genn kilifa la am te mooy Serigne Mountakha ki fi nekkal Serigne bi ñi ci des ñëpp ñoo ci bokk yam buñ ko gën am buñ ko ci jàppalee lu bare bari ci yi ñuy wax mën naa saafaraw ndax euh, xam-xam akub yar man naa liggéey lu baree baree bare daanaka mooy lépp waaye faaw am leneen lu ci dolliku te mooy nit ki amu xëy waaye faaw tamit ñu waajal bii ah te mooy environnement bi nga xam ne ci la nit kiy dund damay faral di joxe misaal ne léeg-léeg dañuy jàpp ne nit ñi soppi seenu dundin wala soppi nit ñuy xalaat dafa xaw a jafe waaye déedéet léeg-léeg li ko li tax muy xaw a jafe mooy environnement bi ñuy dund moom la ñu war a njëkk a soppi bu ko defee nit ki adapté wu ci day yomb ndax euh, agence bancaire yi fi nekk néew na ku ciy dugg te boo duggee ci banque bi rek daa doo daal di soppi sa comportement téléphone sax boo koy wi boo waroon wax ci kaw naaj mujj di wax ngir environnement bi nga nekk moo laaj boo yoroon aw këyit war koo sànni nga dem xool fa poubelle nga dugal ko fa waaye boo génnee ci mbedd mi nag coow li bari nit ñi yuuxu booy wuy téléphone da ngay ànd ak ñoom di yuuxu boo gisee mbalit mi bari boo yorewu këyit da nga koy sànni ci suuf wala mbuus waaye boo gisoon mu seet wecc lépp tegu ci yoon bu boobaa noonu ngay adopté woo di lu doxee lu mel noonu nag moom ngay fekk ba tey ci wàllu économie bu fekkee ñi nga xam ne dañoo ñëw ci dëkk bi nañu waa waagal na jàpp ne dëkk ba boo fa demee kat am na yoo xam ne dañ koy bañ waaye nga ñëw fekk la nga doon yaakaar demewut noona bu boobaa da nga daal di delluwaat yow ca na nga doon doxee te loolu li muy tekki mooy kon waajtaay yi war naa yaatu ci wet yépp ba nga xam ne ku ñëw da nga ciy mën a adapté wu ci biir loolu nag Touba kanam moom bokk na ci ay xalaatam fexe ba ndaw ñi am xëy ren ji situation bi léeg-léeg da nga programme dara ba mu mu xat waaye bokkoon na ci te fi mu ne nii ñu ngi koy étudier nu ñuy def ba am suuf su bari def fa ay tool te bay mbayum lii nga xam ne moo jëm ci ci boole yu ni mel waaye boole ci ak càmm ndax bu ñu waxee ne màggalu Tuubaa li ñuy rey ci ay nag ak xar ak euh, gileem ak yu ni mel xayma nañ ko ci ëpp fanweeri milliards ci lañuy jënd loolu économie bu bare bari la te yëmut ci loolu ndax xam ngeen ne nag yi ñu fiy lewetal rek la cay toppaat ci derrière Euh, euh, weyaak yooyu yëpp di benn chaîne de production boo xam ne lim mën a jur ci ay xëy kenn xamul lu mu toll waaye loolu faw dañuy dox jëm ca nag te dox jëm ca dañ ci takktoo jàppalante ca ndax buñ ko bàyyee ñenn rek day sooxee wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Abdoul am na solo lool day mel ne ni ñu ko doon junjee sànq rek day mel ne Touba ci kanam bokk na ci solution yi nga xam ne mën naa lijjanti ci li nga xam ne moom la ñuy jàmbat kon yàlla na suñu borom gën leen a taxaw ci barke sëriñ bi ba li nga xam ne moom lañ fas yéene liggéey ci dëkk bi suñu borom kàttanal leen bañ mottali ko dañu àndoo ñoom jërëjëf sëriñ Abdou Fatah kon dañuy woo sëriñ Charles bu sant